moo mm-hmm. ah, en tout cas daal weddi ngeen loo xamante ne dootul deñ bàyyi laay la yàlla yónni mooy res mooy rasulullah te nit xamante ne. ko waxee soxna si non déglu déglu déglu euh, <laughs> wax de wéykat kan moo ko wax. <laughs> ma ne daal en tout cas yàlla nekk na koo xamante ne kenn du ko foowe mhm. bu fekkoon tey jii nii euh, Baye Laye du Muhammad. yàlla ak ay kéemtaanam ñaata ah. at mu koy woo mu suñuy maam suñuy maamaati maam. Hmm. ba chaque année euh, nit ñi di gën a yokk. fan fan lay yokk. tey jii fekkoon lii du fan fan lay yokk ah chaque chaque année woote bi gën a yokk. fan fan lay yokk. mu ni. ban bërëb lay yokk fan. xanaa ka yoof jàmbalaay. kese. ci ab yonante ci ab ci Muhammad ah ci bu yàlla yónni ci benn bërëb rek lay yokk. ah waaw. benn bërëb li tax yéen moo leen gëm loolu. <laughs> li tax moo leen gëm loolu yéen. non dañuy ne. bu nekkul woon dëgg wooteem du yokku rek mhm. dañuy xool ba xam est ce que loolu yokkute la yokkute loolu la ñuy xool léegi dañu ñëw en tant que yonent bi konoon tey nii yàlla war nañu ay misaalam te jàmm laa bi ñu toog la soxna si may wax ci suuf soxna si may wax en tant que yonent bu yàlla yóndi ci mbooleem nga ma day gën a yokk laaj la fan lay yokk nga ne ma yof aduna bi ñaari miliyaaru julit nga ne ma diw yonent la nga ne woote mu ngi yokk fan lay yokk nga tuddal ma benn puxus ci Sénégal que loolu yokkuteef la ci am yonent boo xam ne nee na yàllaa ko yoon dëgg la benn puxus ci Sénégal ñoo ko gëm ci àdduna bi yoof est-ce que loolu yokkuteef la soxna si ubbi sa micro soxna si dafa doy waar de soxna si waaw mi ko doy en tout cas daal en may leen ñu may leen ñu suñu may leen jàmm may daal en fait ngeen bàyyi ñu gëm lañu ñu mm. waaw ku nekk xam nga rek. Eh, te soxna si soxna si su ma ñëwoon ne tey jii man. même maa ngi di gis wax wax wax ñaaw ci naan xaw ma bàyyi laay bëgguma ci sax jaaraat. soxna si soxna si soxna Rokhaya. waaw xalaat yow tey jii ñëwoon. su ma ñëwoon sa maamaati maam bu bu bu nga bëggoon yow maam nga moom nga gën a bëgg sa maam yi mu ma ñëw ma la man maa nekk sa maam boobu man la man maa sa maa maa sa maa sa da nga ma naan déedéet. ci si yéen suñu yonent ngeen moom la moo ñu gënal suñu ndey gënal ñu suñu baay suñu yonent mi nga xam ne moom nee na ñun ñun ñooy mbokkam parce que ñun dañ koo gëm te gisuñu ko. dajewuñ ak moom ñun duñu daje ak moom ñu ko wax aka neexoon mu bëgg daje ñun parce que ñun dañuy gëm te gisuñu mu ne yomal xiyaam. mais Baye Laye amul photo attends attends attends dajé dajé la daké dajé amna ñu mu dajal bàyyi la am ñu mu dajal yonent bi nee ñu ñuy ñëw après duñ ko gis ñun bàyyi la dinaa katt kattee sa diggu la fal nday yaag digu duur ginaar dinaa katt sa nday la 28 bàyyi la waaw pourquoi la dof bi wow sasala la fal nday yaag digu ak dof sa vidéo beegi sama page ski dof la ki wirut ama photo xam naa compte bi dañ koo tëj. waaw ah, ko ak ba le vingt huit. <laughs> dem nañ xaar le vingt ba am nañ rendez pour moom daf na affaire bu gàtt. <laughs> yàlla ko yàlla sama biir bi de yàlla ko yàlla jubal moom moom sax tey ñu lay jaale saaga ah la moom la moo ko doon tere def na plus que saaga kay moom kay lu mu traité yaayam yaa na yàlla jubal ko léegi soxna Rokhaya kii sunu maam sunu sunu yonent ku ñu gën ñu gënal sunu ndey gënal sunu baay ngeen ngeen jël naan ko moo def lii moo def lii moo def lii moo def lii moom moo ñuuloon fii moo ñuul fii moo def lii am na ay doom da ngeen jël suñu yonent nga amal ko yeneen doom ñun du kon ñun dañuy weddi lool suñu yonent yéen a wax suñu yonent benn lool beneen mooy yonent bi sallallahu alayhi yaa ngi doon wax say argument yow naan affaire yi day gën a yokk yonent bi sallallahu alayhi moom nga xam ne fu mu feeñoon dañ ko doon xeex ànd ak loolu exponentiellement islam bi tasaaroo na ba dem ba Europe ba France yen yonent bi ni ngeen yonent mom ngeen dafa ñewat mu ñewat ci dekk bo xamne ne xeexuñu ko te pukus bu mu nek fofu yof sax dominé wu fa yonent bi dafa ñewat ay yéeféeri tuba yi ñew di di di di ko bañ di ko baraj barajee nii men ni seen yëf. di diko di ko croix. wa ay doomam bi ñukay ñukay jox médaille soxna ci yewul yoy it yonent bi alayhi wasallam ah, waxul ni day ñewat dal limay mëna wax dal moy gëm naa ah mais mais gëm mais mënoo mënoo ko layal. mënoo ko layal c'est te da ngaa gëm loo xam ne dafa weddi lu jullit yi gëm yàlla dafa weddi loolu si alquran yàlla dafa yónent bi du daganatul ngay jëlaat beneen soxna ginnaaw yi sa soxna yi nga am daganatul nga si dolliwaat beneen après min baad yéen ngeen ñëw ñëw na après min baad boobu am na jëlaat na yeneen soxna mënul nekk. Jésus amul amul amul bàyyi loolu mooy miracle bu yàlla def si moom yéen ngeen amal Jésus baay Jésus deewagul ngeen réincarné ko si keneen Jésus day wàccaat yonent neen Damas lay wàcc Damas Jésus Damas lay wàccaat di aussi Màkka lañuy ñuy jaayante moom Màkka seen waa ji musul dem Màkk seen doomam bi musul dem Damas. mais ñun mais mooy suñu Màkk. ah ba non non Maka Maka. Yoff jàmmalaay mooy suñu mag Yoff eh, Makaama Ibrahima anam fii ku yow. Ah, ma Makaama. te ñun Makaama Ibrahima Makaama Ibrahima moom mooy mooy fan si ana Kaaba ji parce que yonent bi daa daa benn coin Kaaba ba entre benn coin Kaaba Makaama Ibrahima foofu la ñuy moom mooy coin yéeme bii ok nee nga dem Yoff na màkk nga booy dem màkk di aji. léegi booy dem màkk kan la booy dem di aji soxna si. yii mooy ponk ci aj booy aj Kaaba di def Kaaba wër Kaaba euh, da ngay taxaw Arafat benn bërëb la da ngay sànni te jamra benn bërëb la ci biir màkk dangay dem fanaani Mina ñetti fan ba ñeent. léegi yéen yoof ana seen kaaba. safa ak marwa safa ak marwa seen seen maqaam Ibrahim. ana seen mina ana seen jamra man daal en tout cas daal détails yi yëpp dugg ci dugg man daal li ma mën wax daal mooy. bàyyi laa yow yoof mooy ku yoof mooy mooy màkket ana Kaaba ja ana Kaaba ja soxna si man dama lay dénk soxna si soxna si ragal soxna si man dama lay dénk balaa ngay dem dama lay dénk. en tant que sama sama sœur sama mbokk jullit. Mm-hmm. soxna si yàlla dafa wax ci alquran mu ne. maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin yàlla moo wax de mu ne muhammad de du bàyyi kenn ci yéen. ba bu faatoo ngeen koy doon di nekk yonente waaye nag yonente la moo mujj. ci yonente yi moo mujj lii la alxuraan wax moom yonente bi sallallahu alayhi mu ne laa nabiya baadi amul beneen yonente sama ginnaaw moom yonente bi mu ku woote woo ab yonente sama ginnaaw mu ne dajjaal kaddaab mu ne fenkat la ab dajjaal la boroom xam-xamu lislaam yi kenn wuutewul ci boroom xam-xam islaam yëpp yëpp yëpp yëpp ba si ñu ñuy wax ay soufis bu sax léeg-léeg ñoom Ghazali léeg-léeg ñoom Ghumari euh, ne képp koo xam ne dafa woote wo ab yonente ginnaaw yonente bi salaa sallam kooku ab yéefar kooku amul benn jullit bu ci wuute lu dul benn pukkus ci Sénégal. kon ñun ay yéefar lañ daal nga bëgg a wax. xaaral xaaral yow du ma ne yéefar nga parce que xëy nga am suba balaa nga naan nit ki yéefar nga defal iqaamatul xujja est-ce que nga naan yéefar la xamoon na lu mu nekk ba xam kéefar la est-ce que muy ànd ak xelam. est-ce que leeral nañ ko ba mbir mi leer ci boppam moo tax du ma ñëw ne yéefar nga mais mun naa ne képp ku gëm ni ginnaaw yonente bi am na beneen yonente fas ko kooku yéefar la d'une manière générale mais mënuma jàkkaar ni ki da ko yéefar nga <laughs> tant que charte yi déglu ba tant que lii lii la boroom xam-xamu islaam yi wax lii la alxuraan wax lii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax soxna si boo utiliser sa xel soxna si yonente day nice day rafet yonente bu ñaaw amul léegi bàyyi laay moo ñëw bàyyi amul photo. non dafa musul waaw musul gis bàyyi laay waaw doom ji doom ji kan <laughs> man loolu duma ci dugg. en tout cas daal islam la de islam. mooy sa naa laa islam la de. bu rafet gëm ne sa yonent la kii rafet na rafet na. rafet na kay. xam nga yonent yàlla Yusuf est ce que xam nga yonent xam naa ko. yonent Yusuf histoire am. waaw histoire am laay dégg waaye xaw ma ko nag. ok ba yonent moo moo gën a rafet ci yonent yi. Hmm. ce que du du Yusuf. Yusuf boobu nee nañu yonent Muhammad moo ko dàq. te na ngeen bàyyi moo nekkaat yonente bi soo xam nga léeg-léeg bu ma wax nga jàpp ni damay jab li nga gëm wala léegi mais ni lislaam la borom islam ñoo ko nee na yàlla musul yónni yonente bu ñaaw ndax leeraay boobu moo leen di bay taar. comme comme sama copain da nga doom ji daa ñaaw rek kon. déglu ma yonent bi daa ñaaw loolu nga bëgg a wax foofu. tubaab bi da nee na les chiens ne font pas les chats. loolu beneen bi mooy beneen ay médailles tubaab dina takkale ay médailles ana yonent teg takk médailles. leen ginnaaw fu ngeen gëm di bàyyi laay mooy rasulullah billaahi lu wér la de. yow ba tey indiloo ma dalil. xam lu gëna graw nga gëm lo xamne soxna ci yow amo ci dalil nga gëm lo xamne ñi ngay waxal ñu lay indil alxuraan di la indil aya nga top continue di moy naan li te mëno indi dara lo tek ci loxo nit ñi ni ki yonent la bu fekke kep ko wax ñu gëm ko dajal bu waxe dañ ko war bu fekke lu nit wax rek gëm na ma yonent rek ñu gëm ko dedet yonent day and ak preuve sallallahu bi wasallam preuve bu gëna a moy alquran parce que alxuraan arab yi ñu ko yónni sax ñoom ñoo dem ba gëm ni lii du waxu nit lii miracle la ndax wax ji na mu jekkee na mu rafetee na mu organisé na mu sellee arab yi nga xam ne ñoo gënoon dégg arab ñoo dem ba ne non lii du waxu nit loolu nekkoon miracle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boo xam ne amul téere yàlla wàccewul ci moom téere yàlla dafa ne wa anzalna maahumul kitaab dafa ne bépp yonente dañoo wàccee ci moom téere bàyyi laay ban téere la yàlla wàccee ci moom lol mais lol mo waral sen weddi kon ah baax na man li ma la tuddal lii yëpp da waral ay la la njëkk indi na yàlla mo la njëkk wax ni ginaaw yonente bi amul yonente jàngal na la ay bi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يونتي مو كل تيرا يونتي جناو أمول بنين يونتي القرآن لا جنگل Mm. yonent sallallahu alayhi wa sallam la laa nabiya baadi amul beneen yonent sama ginnaaw alxuraan laa la jàngal ak waxu yonent indil naa la ci alxuraan ak waxu yonent bi li wane ni limaamu laay mënul nekk yonent yow mënoo teg dara sama loxo yaag say mbokk yu fi yéeg depuis sànq mënoo leen teg dara samay loxo li wane ni yonent la. ko nga la côté moo tax. waaw parce que da ngeen am. wuy ma man bi parce que ni ngay waxee ci bàyyi laay daf may metti non soxna si pourtant rek. seetlu na de xamul rek laa si li may waxee nii liw na de. parce que jigéen ñi xamul rek li na trop trop trop trop. si ngir si soxna si en tout cas yow amatoo lay yow soxna si amatoo lay de. yow da nga soxla la preuve bi war a ni bàyyi laay du yonante indi nañ la ko nañ la ko ci alxuraan indi la ko ci waxu yonent bi indi la ko ci xel indi la ko ci xel nga comprendre nga deg mais yalla la yalla jubal yalla la taxi si yoonu jub amin lay jaajëfal soxna ci wa wa insha allah dafa am importance xam nga ñun tay ñu bëggalee suñu bop aljana dañu bëggal bëpp mboolem jurit rawati na sénégalais rawati na suñu mbokk yi xamoot dañ ko wacce fekk yaa ñuy dégg xam nga lii dafa daw dafa dafa daw yaram doy na waar moom mooy ne tey yàlla yónne ab yonentoom yàlla jox ko téere yonent boobu ñëw indi mission bi ba mission bi mat mu génn fi at dem ay at yu baree baree bare bare bare bare yonent boobu noonu yàlla yónne woon ko ci nit ak jinne ñëpp léegi yéen keneen ñëw woote ne moom mooy yonent bi salaa salaam ñu gëm leen loolu ngeen gëm ko te yéen yi ngi ubbi seen bët yi di gis gumbawoo leen taxoo leen dara jàpp leen moom mooy ne xam ngeen ne lii Imaamu Laay di woote mënu leen ko amul benn preuve mais fi ngeen bëgg a teg seen seen mbir yi moom mooy ne tey gëm nañ gëm nañ comme li yéefar yi waxoon rek xawlu bal wajadna abaana boo demee te comme ni ñu wax rek xawla awalaw juttukum comme ni ñu ko waxee si aaya yooyu noonu tey suñuy maama gëmoon lii suñuy bàyyi gëm lii ñu gëm ko yéen loolu da ngeen di wax yéefar yi doon wax déedéet mbir mi du loolu yàlla dalaa jox wala taqfu maa laysa laka bi ilm bu dugg si loo xam ne si amoo ji xam-xam إن السمع والبصر وال... إن السمع والبصر جزنجا والفؤاد والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا loolu yàlla boo ñu ko wax bul dugg si loo xam amoo ci xam-xam parce que yàlla dana defal ay bët defal la déggukaay defal la ab xol boo demee si ay yooyu yàlla ma maanaam doomu aadama bi tey li ko wuuteeg mala yi moom mooy ne tey xelam mu mu utiliser tey boo gisoon acide ak boisson doo leen jaawale da nga xam ne ne lii acide la acide bii bu ma ko naanee daf may rey mais boisson bii bu ma ko naanee dinaa geex toog jàpp sama bopp mu neex mais dafoo leen a jàpp leen ñun lu ñu leen indil nii ñuy toog fii nii tey di wax nekkul ne dañuy weddi si suñu naf su bakkan déedéet dañuy weddee ak ay preuve preuve bi gën a rëy ci alam bii nii ci monde bi tey wax bi gën a màgg mooy waxu yàlla la ñuy teg di ko weddee li ñuy wedd ak wax ki nga xam ne si ne tey moom la yàlla yónnee muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam la ñuy weddee léegi yéen dañoo soxla ay preuve ci li ngeen gëm bu fekkoon ne yéen da ngeen ñoo indi ay preuve yàlla indi ñu preuve ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañuy gëm te imaam laay tey bu fekkee ne moom ba mu wootee yonent lan moo tax tey moom yàlla digalu ko mu xeex ak ñi nga xam dañoo weddi yonent bi sallallahu alayhi wa tey yàlla dafa dem ba da koo digal ñi nga xam ne si tey dañoo weddi woon mooy kuffaar yi dañ doon xeex ak ñoom xare badr xare uxut lu tax léegi moom xeexut ak ñi nga xam ne si dañoo weddi utiliser leen seen xel yi jaratul ñu leen indil ay aay leer na si yéen naññi yéen ñëpp yéen a ngi gis live yi yéen a ngi gis ni ñaa ngi toog si tele yi di leen weddi dafa leer mbir mi leer na si yéen iqaamatul xujja loolu noonu tey ñu ngi koy defar mooy xale yi ndaw yi ngeen xam si dañoo judd ci yéen ñu bëgg leen a yar ci yoon boobu noonu ñoo ñooñu nga xam na si xamuñu dara mais yéen ñii nekk ay muskallaf dofoo leen dina jàpp leen ba yéen bal sax yéen da ngeen ne way naan waaw xaw ma noo leen koy wayee noonu sax am na way bi noo leen koy wayee naan xaw ma daal waaw. weddi ngeen lu dootul day. waaw woote ngeen lu dootul xam ngeen ne tey ni ñi ñu ngi leen di weddi. Ah, way bi ah way bi la ko doon wax. waaw ah, ñun gëm nañu. bisimilah